wa dama ne alaykum tiv info li nga xamni ci la bok muy site bo xamni site internet la bu tiawan tiwawan di fi liggéey liggéey bu am solo ma ngi nuyu wa tiwawan gep di nuyu wa senegal di nuyu samay wajur sama yaay di nuyu samay mbok di nuyu wa senegal gep rawatina nak wa Tiwaawan waaye rawatina wa kuli sama Paris la France nuyu na la tiv info waaw boo gisee nag ma jàppoon ko daaw le un mars ba tey le un mars dinaa sifle gato ak samay xarit ndax sama jour anniversaire la waaye dama calculer ni man damay ànd ak ay nit yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu politique ñu amoon ay élection yoo xam ni mu nekkoon le 24 février ma ma ciy lancé waale benn message pour sénégalais yépp yal na leen yàlla defal ñu am jàmm dund ci jàmm dund dund gu stable ñëpp nekk ci jàmm kenn bañ a am problème ñu bëgg ñëpp woote jàmm kilifa yi ñaan nañ ko fi waaw te yal nañu yàlla defal jàmm daal te élection yi nag ku ko tudd le 24 février te février dafa doon weer wu gàtt doon le 28 muy le 28 lay la weer wi di faral di di dee ma puus ko nag.

ndakaaru ak lu ko wër ak fépp fu artiste dëkk ci Sénégal rek fexe naa ma sama diggante yow re tax ren nag ma fësee na koo defee fii ci hôtel bi nga xam ne mooy hôtel Adjana di ci invité képp ku ma yàlla booleel may ànd ak moom maa ngi ciy invité ah son excellence monsieur ministre Matar Ba sama xarit di ci invité acteur de développement Ablaye Ndiaye Ngalgu du move président mouvement André defar di ci invité Khalil Ndiaye bi nga xamni moy borom mouvement Macky sans frontières di ci invité la maire de la ville de Tiawan Moussé Diagne Simbeng di ci invité Seynabou Gueye Touré di ci invité Matar Diouf Talibé Seyn Abdou Aziz Alamin, di ci invité Abdou ministre d'État Diouf la Lion de Kayor Seynabou Gueye Touré di ci invité Malik Gaye DG invité Wali Balago Sek, invité artistes Yep, Bastoung, invité ku lim mën ngaa jum ndax artistes yëpp samay xarit lan maa ngi leen ci invité ñoom ñëpp di ci invité si télé yëpp ak site internet yëpp rawatina TIV info gi nga xam ne fi laa dëkk muy sama Paris la France di Tivaouane di ci invité politiciens yëpp rawatina nag parti au pouvoir ndax ñoom la ma yàlla booleel may ànd ak ñoom maa ngi ci invité Yaya Diallo maa ngi ci invité Fass maa ngi ci invité gàmmu Fall maa ngi ci invité képp daal koo xam ni yaa ngi doon sama xarit di ko invité sama xarit yi ma àndal ñu dëkk Tiwaawan dëkk Kuli ku ci mel ni Papa Nene sama Simon ku ci mel ni Mamor Ndiaye ku ci mel ni Pam Maysa ku ci mel ni àndala ku ci mel ni Mandaw Kase Wow, ikib yi ma ci àndal xadi ñaaña kulim rek man ngaa jum ba tey maa ngi ci invité daal waa Tiwaawoon nga xam ne ñooy sama Paris la France ñoo ma may doole ba ma ñeme koo def dama bëgg na ren ngeen ñëw jàppale ma ndax man Tiwaawoon lay tiitaroo ndax man boo gisee am na ñu ma doon wax sanaama gumba pourquoi pas nga yóbbu ko Tiwaawoon nga yóbbu ko Thiès maa ngi juum sax man leen duma ko yóbbu Thiès ndax dëkkuma Thiès gumba gumba Tiwaawoon la bëgg naa daal ngeen ñëw jàppale ma ci dooleel ma ci lancé naa message boo xam ne daal le 1 le 1 avril invité naa ci képp kuy béggee gumba Anta Diop la Ndiaye ministre de la communication maa ngi ci invité ah ñi nga xam ni nag ñoo ma jàppale dooleel ma ku ci mel ni Gora Gueye Kër Xaadim Télécom yàgg ma cee jàppale ku ci mel ni a ah, samay mbok askanu yali Kumba fal nday gawla mi ci gaday ku ci melni ni samay jigen samay sisse mang ci wo dal di ci wo pa malik Mbay caatu mbay mbay donde mi nga xamni sama cheikh la sama xarit la kon ren dal bis ba sen sen bis la yeen wa artis, artiste yep kep ku tuddul sa tour rek sama xol bu ma sañon ñëpp lay tudd waye dafa don lo xamni ni bi video bu gatt la rek pour teg sama pose premier père tey lancé ko fi ci Tivaouane mangi invité ñep Gumba Bol, doomu Tivaouane ministre de la communication invité na kep kuy artiste ku nekk Sénégal muy sama anniversaire sixième édition le 1 avril le 1 avril. ci invité sama xarit def ko paré muy Maodo malik Mbaye borom kere mu neeze. taalibe Seydi Hadji Malick internationalu Seydi Hadji Malick waaye maa ngi ciy invité Abdou Aziz Mbaye taalibe Serigne Saliou borom jàppandal xabaan di ko def parrain muy sama mbokk ñu bokk benn maam di borom Bruxelles di borom Paris la France di borom oto waaye maa ngi ciy invité ku ñuy wax couverture maladie universelle Yellamine Goumbala le un avril daal bis boobu seen bis la